ko fay waxtaane yéenekaay gi de Le Quotidien Farba Ngom moom commencé na ko waxtaane ci biir journal bi nee na Macky Sall mooy seen candidat maanaam mu neex ko ak mu naqari ko yéenekaay gi di bés bi lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag ñoo ngi ciy waajal ab motion de soutien jëmale ko ci Macky Sall nag jamono joojee gis nañ ne Idrissa Seck maanaam dafa noppi ci mbir mi te moo ne 2012 a Idi moom dañu doon gu rëy gi nga xam ne moom njiitul réew mi noppi na ko yéen kaay gi délibération bàyyi mbir moomee wax ci rapport cour des comptes bi nga xam ne feeñal na ay ñaawteef ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon coronavirus bi te jamono ji maanaam gars yi di ko mbifi foore journal bi nee na dafa am benn coalition bu tudd coalition nationale pour la santé ñoom nag jamono ji ñoom nag nee nañu mënuñoo nangu benn yoon ñu jël ab xaalis ngir lu jëm ci wàllum covid 19 ay nit di ko lekk loolee xel mënu ko nangu ay sénégalais yu baree bari nag jamono ji ñaawlu nañ ko bu baax a baax liggéeyam ci mbir mi ubbi ci enquête ñi nga xam ne def nañu si ay njombe ki tooxi ñu daal leen di teg ay daan yéen kay gi di Sud Quotidien ak réew mi Quotidien nee na ba ci lu jëm ci rapport Cour des comptes bi nga xam ne jëm na ci covid 19 beek ni nga xam ne moom la ñu njorte ne moom la ñu saax-saaxee alalu réew mi loolee tax na organisation société civile yu bare bari danañu wàcc ci mbedd mi fanweeri fan ci weeru décembre bi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ngir xam ne dañu ko pasar pasare te rapport Cour des nag nee nañu opération goqi suñu xaalisa ndax bëri na ñoo xam ne faatu nañ ci coronavirus bi te li nga xam ne moo leen faat mooy manque matériel la yéene kaay gi di réew mi ko di jee nee na yaana maara ak frappe ak africa jom ñoom aluntine d ñoom ñoo ngi woo askanu sénégal gi yëpp maanaam ñu génn fan fanweeri fan ci weeru décembre ngir nag amal maanaam manifestation wane suñu bopp ci na ñii nga xam ne dañoo saax-saaxee alal ji yéene kaay gi di enquête nee na Macky Sall ndax mbir mi dana sa dem sa ci pandaw en tout cas li amba de Sall ni ki démb moom Macky wax na premier ministre bi Amadou Ba ko lu leer nañ ne naka saytul ma rapport yi te nga jël mesure yi nga xam ne moom lañ si a jël ngir mbir mi daal leer nañ yéene kaay gi di bés xëy di ñu xibaar naan ñu rapport Cour des comptes bi ñu def si xaalisu covid 19 bi ak nag njombe yi nga xam ne wane na ko est ce que du décret création fonds covid 19 bi moo ko ndax décret création fonds covid 19 dafay may sañ-sañ ñi nga xam ne ñoom lañ ñu mën a def ay dépense te kenn yi ndax du

ne nag naqari na lool Birahim Seck Forum Civil daan nay jubbanti Mansour Faye nee na ko lii du jàll yéen nee na sunu système de santé bi jamono ji dafa gën a gëllugoosee bu passé nag fond Covid 19 yi nga xam ne gars yi nee nañu dañu ko tambaambaloo grève bi nga xam ne waa santé ñoo ngi koy def suba ngoon guddeeg bëccëg prise en charge bi nga xam ne maanaam qualité bi néew na lool lii lépp soo ko boolee gis ne maanaam suñu wàllu wér gi yaram gi sooxe na ba jéggi tayoo yéen kaay gi di La Tribune nee na ni nga xam ne moom la ñu yoree a xaalisu Covid bi am na ci ay ministre yoo xam ne loolee moo tax ñu dàqale na waaye tamit am na ciy ministre yoo xam ne Macky Sall da leen a protégé ñi nga xam ne dàq nañ leen ngir fond Covid 19 bi Matar Ba Dame Diop Zahra Iyane Thiam Abdoulaye Diouf Sarr bu dee nag ñenn Macky Sall protégé na leen kenn ki Mansour Faye lay wuyu kenn ki Abdoulaye Daouda Diallo ak Moustapha Diop waa Grand Place nee na Ismaïla Madior Fall mi ñu dénk wàllum yoon ci réew moom ba léegi kenn déggagu ko ci yéen kaay gi de Libération wax ci audio yi Adji Sarr yi ak MC Niass journal bi nee na avocat yi Ousmane yi ñoom nag sàkku nañu ci doyen de juge ngir nag mu convoqué ngir nag daal di koy dégloo ndax ci audio Adji sar MC Niass maanaam Adji Sarr ma nga say leeral ne Mamour Diallo moo tëgg li nga xam ne mooy complot bi yéen kay gi délibération nee na audio yi Adji sar moom ci boppam wax na ci kanamu doyen de juge na ko audio yi moom la yéen kay gi xëy di ñu xibaar naan ñu docteur Alfousseynou Gaye moom te waxoon na doyen de juge na ko Mamour jallo woo na ma ay yon yoona moom ak maître Sow loole moo tax avocat yi Ousmane Sonko yi di sàkk ñu déglu Mamour Diallo ndax Mamour Diallo da doon laaj docteur Alfousseynou Gaye lan moo nekk ci certificat médical bi yéen gi tamit nee na bëri nay contradictoire yoo xam ne am na ci diggante Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye ndax Sidi Ahmed Mbaye bi ko doyen des juges laajee dana ko musuma dem Sweet Beauty te bi doyen des juges laajee Adji Sarr Adji Sarr nee na ko Sidi Mohamed Mbaye ñëw na Sweet Beauty ba tey yéen a kaay gi de Le Quotidien yor yor nee kan mooy protéger Mamour Diallo ndax tuumal nañ ko fi 94 milliards yu OFNAC ci lu jël dossier bi jébal ko procureur ba léegi mbir mi mujjul fenn ñu ne déetawaay Macky Sall jël ko yóbbu ko ONAS loolee ñuy laaj kan mooy protester Mamour Diallo mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr complot bi maanaam turu Mamour Diallo ñëw na ci ay yoonu yoona ba tax sax avocat yi Ousmane Sonko di sàkk ñu lu ko waaye ba léegi France dali xëdd na Moustapha Diop mi nga xam ne mooy maire bu Louga ci élection locale yi waxoon na fi ne nit koo xam ne dañu ko joxar baraamu tuuma ci ay te ko kenn du ko fal maire Louga maanaam Mamour Diallo la doon gaaral yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Bira Sène mi nga xam ne moo jiite CNG jamono ji nag moom ma ngi teg pression ci ki nga xam ne mooy Modou ndax nag Modou Lo dafa waxoon